أعيذنا من الوباء وكل ناظل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارئ للبر والتقوى بجاه الناس وزليا أزكى صلاة دافعا عنا أبا من جراد مانع عليه والآل بأفضل سلام وسبه ومسكني ختيا سلام وسك نفسي وزني علما يكسف في الدارين أني هما وطير القلب وزني آيا في طاعة يا ربي وجل يميني كصحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق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 ginnaaw ba nu sante borom bi subhanahu wa di jullu ci sangu-sangu yi tey jii ñoo ngi fii ci jumaay Serigne Cheikh Mbacke mooy Serigne Saliou ci ubbite gi nga xam ne mu jumaam ji sell ji ànd ko waa daayira Nuru Daarayni kër Serigne Cheikh Saliou ci Sidy Nour Média ba tey ànd ko euh, waa Ngabou Média ci liggéey am solo bi ñuy def ci kër Serigne Saliou gi kon dañuy ñëw ci benn jëriñ ci jëriñ mbooloo mi muy Serigne Saliou Diop mi nga xam ne mooy yor lépp lu jëm social daara ji laaj ko naka la gisee bis bi nga xam ne waa Nour daara ni taxawoon ko ànd ko Serigne Cheikh Saliou ci yitte ju kaw yi nga xam ne waa daara bi jox nañ ko liggéey bi kon Serigne Saliou ñoo ngi lay ziar baax a baax. asalaamaaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di jaare waat bu baax di leen joxaat seen yéeguwaay si sëriñ bi di ñaanal xalif général kullu murid sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ko wér noonu it lañ koy ñaanale sëriñ Modou Mbène Fall moom ma fi nekkal maam Cheikh moom it ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ko ñaanal nag sunu jëwriñ ji di sëriñ Cheikh Saliou Mbacke ñoo ngi koy ñaanal Mbacke Ball mu yàgg fi lool te ànd ko wér dëgg fi yàlla de bégaat nañ lool de bégaat nañ lool de ci bis bi ni bégaan nañ si lool de tay it yëg nañ ak yokati bu baax ci suñu jëm yi ni organisation bi nak wax deug fi yalla niñ ko gisee rafetlu nañ ko lool mak talibi mom lepp def nañ ci def nañ ko ci ak talibi lepp jaar na ci ak talibi tay kenn nga ciow kenn neeku fi di xëccio kenn neeku fi lepp dal teunku nañ ko def ko ci ak talibi ñi ngi santane mbolom bu baax baax rek di ñaan rek serigne bi gën ñu teyel pamrek, rek ba lepp lu yaq yaq rek ñu musal ñu ci ñu gën fee nekk di gën a mën a liggéeyal sëriñ bi rek di am ay ngërëmam si barkeb sëriñ Salif Mbacke. ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax di rafetluwaat bu baax a baax a baax liggéey wax dëgg yàlla kontaan rek la ñu la ñu def kontaan képp kontaan tamit ci sëriñ bi du ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndaxte lu mel nii ku ko jël daal koy def yaakaar naa ne umma umma bi yëpp amee nañ la njukkal. Uma, umma umma Islamik bi yëpp amel nañ ko ndax te li dafa reey te tamit dafa neex ci xol euh, ñu nak yalla dañoo taw ñu ando nak señ bi ci ci tambale gi ba ba ba legi ni. ba bis bi ñukoy koy kon lolu taw la ñu ngi ciy sant bu baaxa baax ba di ci santat señ bi bu baaxa baax ba wa deug yalla yeg yeg bi dal ben la rek contane nan lol contane nan bu baaxa baax a bi ni mu nga xamne lako ubbe ko fi continuer di fi julli di fi julli di fi julli ay ati ati ati at ñu ànd kook moom waaw di kontaan tamit ci euh, gars yi ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi muy fondation beeg ak yeneen daayira yi nga xam ne ñëw nañ jàpp ci ndaxte lépp lépp ci liggéeyal sëñ bi la te gis nañ ñoom tamit taw euh, Pastef bi nga xam ne moom lañ ci wan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Eh, Abdoulaye Ndiaye laa tudd dëkk eh, ba Touba Sam. Touba Sam. waaw ñëwoon fii di julli jumaa ji. Mm-hmm. waaw Abdoulaye Ndiaye dañoo bëggoon xam tey ban yëg-yëg nga amaat ci ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ibbi na ko tey fii ci Mbacke ban yëg-yëg nga amoon tey sa diggante ak Serigne bi. wax yàlla Serigne Cheikh Saliou moom dama koo sopp ndax man dama soppoon Serigne Saliou. Mm-hmm. ndax man lu ma xam ne Serigne Saliou la. ndax dama yaroo ci keppaaram wax dëgg yàlla moo tax ma sopp Serigne Cheikh Saliou ci njàmbaar gi ak fit gi ak bëgg lislaam ji ak daray àdduna moom sa euh, safawu moom li ko mooy lii rek mooy mooy li ko ñor muy tabax ay jumaa ki jàkk kon yàlla suñu borom gudda ak fanam lool loolu laay ñaan ci barke Serigne Saliou te di ñaan ci barke Serigne Saliou Serigne Cheikh Saliou daal xam naa ne mbir fi moom ndax barab bi ku ko xamoon man xam naa barab bi kon barab bi ku ko xamoon nam meloon nga ñëwaat fi tey jii foog naa ne tey da nga kontaan te sa lislaam dina gën a yokkuwaat kon Serigne Cheikh Saliou yàlla na suñu kawel leen ba uh, uh, nga uh, a amaa ci bis bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ibbi na ko barab bu mel nii waaye di néegu bi yàlla tey ban yëg-yëg ngeen amaa ci diggante Serigne bi ak barab bu mel nii nga xam ne ibbi ko fii barab ci fii ci Mbacke Bawol. waaw bilaay di kontaan rek ci sëñ Cheikh Saliou lim muy defal Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér nañ torop wax dëgg yàlla macha allah mbaake lii moom xaaroon nañ ko torop wax dëgg fa yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral di di sant bu baax ñëpp wax dëgg yàlla kontaan nañ kontaan nañ torop ci sëñ Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg lool Mbacke te wér. man soxna laa tudd. soxna Mbène Gaawa. tey moom am nañ mbégte mu rëy. ndax ñun lépp sëñ Saliou moo ñu ko jox ndax ñun dañoo bokk ci fondation ànd jëfu sëñ Saliou di liggéey sëñ Saliou kon nag duñ gisee sëñ Cheikh def lu rëy lii ci Mbàkke ci bërëb boo xamante bërëbu caaxaan la woon bërëbu fawukaay te yàlla dogal sëñ Cheikh def ci lu toll nii dëgg am nañ ci mbégte mu rëy lool sax di ci kontaane trop ñaar sëñ Cheikh suñ boom yàggal ko fi loolu Mbàkke da wér ndax du fi mooy suñu njariñ ñun moom ndax lii lépp daal moom la Mbacke Balla kon bu ko defee ba tey dañuy ànd ak waa Ngabou Média ak waa daayira noonu daayira ni kër Serigne Cheikh Saliou taxaw fii ci eh, waxtaan ak benn jëwriñ ci xam ne ci mag yi taalibe yi la wax ñu tey ban yëg-yëg nga amaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou taxawal na ko fii ci Mbacke Mbacke Mbacke Bawal kon saa waay ñoo ngi lay siyaar di la wax ban yëg-yëg nga amaat ci bis bi waaw yow balaa loola dañuy nuyoo mm-hmm. ki nga xam ne mooy jëmmi Serigne Cheikh Saliou Mbacke mm-hmm. di ñaan sama borom yàggal ko fi di wér yàggal fi sëñ Mountakha Mbacke mm-hmm. yàggal fi sëñ Amdi Assane sëñ Amdi Modou Med la taxoog suma mbokk taalibe yi kii Fall la sant Daawda Fall kii maam Biram Fall ñu mbokk taalibe ñu bokk Serigne Cheikh Saliou waaye yëg-yëg yi moo am lu ko raw lañuy am ndax jëmm jëlee ba ñuy ànd ak moom boobu mu booba lax ci laxasaay la ne di liggéeyal boromam gestuwul kanam rek kon bu sampee lu mel nii samp ko feneen ñun duñ def lu ko di ko santale Serigne Touba di ñaan sama borom mu yàgg fi lool ci ànd ak wér loolu daal la ñu mën a wax ndax nit ki boo waxee bopp man ngaa wax la warta wax ndax li ñu mën a wax bari na waaye li mu wax ab tënk la boo xam ne ni junni na lépp ba tey dañu gën a yaatal liggéey bi ànd ko mbokk taali bi sëriñ bi ñooy ñooy lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi ñu bëggoon a xam tur bi ak foo bàyyi ko ñëw tey man Gora Gueye laa tudd mhm. maa ngi bàyyi ko Mbusoobe suñu góor ñu bëggoon xam tay ban yëg nga amaat ci bis bu tedd bi nga xamne Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Saliou ibbi na ko liggéey bu am solo bi eh, di jumaay jumaay Touba Mbacke tay ban yëg ngeen ci amaat en tant que mouride waaye en tant que talib Serigne Touba waaw ñi ngi rafet lu bu baaxa baaxa baaxa baax seen teway fi ci barab bi euh di santat yalla bu baax sante yent bi sallallahu alaihi wasallam sante Serigne Touba santat seen Cheikh timit ndax ku mata sante la ndax liggéey bu toll ni tay ji bu fekkente ni maanaam taxawal nga ko ci barab bu toll nii barab bi nga xamante ni nii euh, képp kuy nitu àdduna soxla nga ko yittewoo nga ko rawatina maanaam fu mu ko jëlee mu doon ab stade boo xamante ni nii dañ fi daan fooye yàlla dogal mu daal koy mu daal ci teg loxoom ñëw ba nga xamante ni nii fii tey jii ñu teg euh, jumaa ji moom moo doonoon rond central fi at bi sifflé kon tay ji bu fekkente ni yàlla dogal na suñu borom defal na tawfiq tay ji bam dem ba def fi juma ji tol ni tay ji mu di sagu l'islam gep nak waxuma sagu murit waye sagu kep kuy ran ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah sa sag la kon tay ji bu ko taxawalee dañ ci am mbekté lo am contenté bu baakha baakha baakha baakha baakh di sante mboolem kilifa diine yeb di sante euh, mboolem julit yeb dal waaw sante ñep wax deug yàlla tax ji ti bo xoolee li fi teewte ji nga xamante ni maanaam mbir mi mbirum ñëpp la du mbirum murid kese parce que murid yaa ngi fi laayeen yaa ngi fi xaadir yaa ngi fi ñëpp a ngi fi teew kon sant sëñ Touba bu rek te xam ni maanaam euh, liggéey bi moom kanam la jëm waaye jëmul ginnaaw. waaw moom kay xanaa moom sant rek. waaw sant sant sant. Euh, Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mooy mooy mooy suñu lépp. Euh, moom lañu yaakaar. kon lii moom duñ def loolu di ko sant. Euh, tey it yàgg na ko def euh, ñu ngi ñaan mu sax dàkk rek Mbàkke balay sax euh, yàgg a woote ñu yàgg koo wuy ci ci barkeb Sëñ Saaliw waaw moom moom moom moom sant na daal yëg-yëg bi mm-hmm. mënuñu sax wax fi mu fi ñu toll mm-hmm. ndax kawe ci ñun lool barke Sëñ Saaliw dañuy sant taw feex gi ne sëriñ bi defal ban fekke ko waaw ndax mënoon na bokk sa ñee toog di ko seetaan mm-hmm. Euh, euh, te it ñoom it euh, ñu ngi ci mhm. ndax seetaan gi tawféex la mhm. ndax am na si yëg-yëg boobu mhm. ñun kon bu sunu borom defalee tawféex ba nu jóg dox ay jéego ñëw teew ci bis bi dañuy sant waaw xanaa sant yàlla bu baax rek di sant Serigne Touba bu baax a baax ah, di wax ne ñëpp mànkoo nañ ñëw ci liggéeyu si wooteeb Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou bi mm-hmm. tey fa presse nekk rek ci Touba ak Mbacke rek mm-hmm. waxuma la Touba sax waaye rawatina Dakar mm-hmm. tey fa presse nekk rek ñëw na ñu ànd link ah, ah, def ko liggéey bu am solo ah, ñëpp kenn ku nekk rek nangoo topp ca ginnaaw morom tey jàpp naa ne loolu doonga mooy liggéeyal Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye di di di di di di gërëm tamit waa waa waa Nourou waa Nourou tamit di leen di leen ziar bu baax a baax seen taxawaay ci biir jumaa ji am na solo lool ndax accueillir nañ gan yi tey képp ñu bépp presse bu ñëw bu nekk rek Ah, jox nañ la signal ah, mm. teg la ci narmo yu leer mm. ah, ba nga mën a am image normale te doo yàqal kenn mm. te loolu lépp grâce à waa Nour Média ñu ngi leen nii bu baax di leen siyaar di ñaan tamit liggéey bii nii tamit ah yal nañu si suñu borom defal tawféex ñu dajee seeg tawféex di ñaanal tamit mm-hmm. waa Ngabou Média tamit ñoom suñu borom defal leen jàmm bu baax a baax ñoom ay gone lañu yoo xam ne nii tamit mm-hmm. xamuñ lenn lu dul Serigne Saliou mm-hmm. te it jubluwuñu lenn lenn leen lenn lu du liggéey seen sang bu baax boobu muy Serigne Saliou te it jàpp naa ne lii dafa mel ne rek lu leen ilham ndaxte soo xoolee métier journaliste doonut loo xam ne nii di nit da daan jàngee ba def formation def lu n ñëw waaye jóge ci daara ñëw mën a gàddu micro mën a gàddu caméra mën a gàddu euh, Ah, machine mm-hmm. di monter di def lépp kon loolu jàpp naa ne jagleelu Serigne Saliou Mbacké la mm-hmm. kon tamit nañ delawaat buy boo buum ca booy booy ko rek mm-hmm. santaat suñu sang ba rek muy Serigne Saliou fii nag boo ko gisee li tax mu yanji nii ah, ah, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké soo gisee jumaa ji fi mu ko defee ci digg mën nañ ne mooy fi arbitre bi daan taxaw daan siffler daan seex siffler bi fas yéene ñu doxal bal bi tey ñu ñëw ba ci digg kii bi ñu def fi digg jumaa bi def am mimbar ba kon loolu ak sant yàlla l'islam ama ci ndam ah dañ koy santee Serigne Saliou rek ndaxte ah li mu bëggoon ci doomi jàmbur yi daan jël doomi jàmbur yi daan def ci ñoom la ko la ko suñ borom fay ba ci Serigne Moutala di leen nuyu bu baax di leen ziar bu baax di nuyu mbokki taaliba yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di leen félicité bu baax jërëjëf waaw kon bu ko defee dañuy àggale liggéey bi tey nag ñoo ngi ci buntu jumaa ba tey Euh, taxaw fi nga xam ne base bi nga xam ne boo gisee sa xel dem ci commission mañ ma xam nuré bi nga xam ne mooy ci euh, a euh, liggéey bu am xam ne ñu ko ànd ak Serigne Cheikh Mbacke moom moom dugg ci biir noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di bég lool ci taxawaay bi nga xam ne amal ngeen ko tey ji ci bërëb bu sell bi nga xam ne mooy jumaay Touba Mbacke ji Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou taxawal ko di rafetlu taxawaay bi ci tàmbaliment bi ba ci jeexalukaay bi lépp rafet gis nañ seen i taxawaay di jiital ci cant gi ak ñaan koo xam ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke lañ koy ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ndax sagub lislaam la sagub yoonu murid la kon nag di dikk ci loolu nga xam ne moom nga tijjee muy social maj ma ni Euh, di sociale boo xam ne mi ngi nekk bànqaas ci biir moo Majmahun Nurayni dongay tërbee Serigne Saliou ak soppe yi Serigne Abdou Ndiaye di jëwriñ ji Serigne Pape Diop euh, doon jëwriñ social bi lii nga xam ne moom la ñuy def ni muy massification euh, Serigne Moutaye jiite ko yabal Serigne Abdoulaye Guèye mii mu ànd ak commission bu am solo ñu taxewee ko ci jumaa ji tey social bi nag damay wax ne Serigne si Ahmadou Mbacke mo ñu ko tuddel taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu ala ismi al udwan ba nopi duggal ci aw ñakam duggal ci ak njabootam soñ ci dongay ba nopi wax na lu ama am solo la wax na na ngeen ma koy fàttali naa xam fu mi toll ndax ci la bok njaboot gi ci lan bok te da ngeen ko fatel ndax liggey la bo xamne yalla du ko ndax ñak wo xamne dang ko jël te yalla rek tax nga jëmele ko ci way te ko nga ba jàngooram saafaraw loolu boo toogee di nga xamne mo sun borom fayna la kon nak ginaaw liggéey la bu mu soñé bo xamné ne yaatal nañ ci jëmmam xel ko mak kërëm ak jumaa yek lu lu baax lu mu doon ci mom bu ñu jógee ko moom social bi ñu tabbal ko ci mu doon liggéey bo xamné ne jëmbo mo ñu dolel maynu lolu bu ko neexoon man nañ wax né yam leen fi su baba ñu yam fa ta du yàq dara ci doon gim gim doon serigne cheikh ñu doon ay donga mu doon suñu jëriñ doon suñu serigne waaye da xamné ne ci la bok mo fi serigne saliw liggéey bu ñor ko lolu mu tabbi ci tabbi bo xamné ne la kon nak ñi ci wo bépp julit di ci wow buppi ndonga di ci woo bépp soppe boo xam ne gis nga liggéey bi nga tàbb ci kon xam naa kàddu gi dañu jox sëñ Abdoulaye Guèye mii nga xam ne moo fi teel massification nu ànd ak moom liggéey bi mu jottali seen kàddu jottali seen liggéey ci nos bi fi mu toll man ko soñu taalibe yi euh, jërëjëf Cheikh Abdou Lahad jërëjëf waa Ngabou Média euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ci ubbiteg jumaa ji nga xam ne mooy Touba Mbacke ñaan señ ci Ahmadou Mbacke mu yagg lool te and ak wir ak njaboot Serigne Saliou Mbacke gep liggey bu reuy bi mu def nga xamne l'islam gep gépp ko defal wax deug yalla tarikh yep la ko defal kon ñepp ci am mbekté tay bu ab julit nek rek tay am nga mbekté ci liggey bu am solo bi señ ci liggéey liggey yalla nako fi yalla yagg lool te mu ak wir ci kilifa yu bax yi fi tew ñepp kep ko xamne yalla dogal na nga dox ba ci fi ci julit yi yalla suñu borom nangu jëf jëf waaw social bi day wax dëgg yàlla comme ni ko sëñ Abdoulaye waxee léegi rek dañuy sof suñu kàddu ci ay kaddoom te xam ne moom fu mu waxee rek mën nañu yóbbaale suñu kaddu saa su nekk ci yëpp jotaay ci eh, Abdoulaye kaddu yi am na solo lool social mañ ma woonoo ni eh, ni mu ko waxee mbooloo la moo xam ne mi ngi aju ci mbooloom dongay Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké eh, dongay Touba Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké rek dafa wuute ak yeneen i mbooloo ci tërlin wi képp koo xam ne bala sa waajur jëlee jox la Serigne Saliou rek booba nga bokk ci mboolem dongal Sëriñ Saaliw Mbàkke ci mañ ma honóor ni loolu moo la dugal ci mañ ma honóor ni kon mañ ma honóor ni ci dugal nit génnu ko ci day dugg ci Sëriñ Saaliw waxoon ne daara ji bëgg fee ñëw taxul nga ñëw fi bañ fee ñëwut teewul nga ñëw fi kon loolu mooy dugal nit ki ci mañ ma ni waaye nag ñu ànd ko ak soppe yi soppe yi nag doon lu am doole ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey sëriñ bi ndax foo gees soo gis fukki dong da nga gis téeméeri soppi ci wet gi te kenn mënu ci liggéey kon loolu day dugal ci dugg ci li sëñ bi waxoon am na ñoo xam ne dama leen fekk seen i kër waajur defar leen loolu soppe yi dëggal ne loolu ñu ngi ñu ngi leen sant bu baax a baax baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak ñoom massification nag di kuréel boo xam ne kuréel bu am solo la ci liggéey bi mooy yaatal liggéey social Majmahun Nurayni euh, ñu dénk ko sëriñ Mouhamadou Tay nekk Dakar doon jàmbaar lool ci ci social bi képp ko xam social Majmahun moo nag xam nga sëriñ Mouhamadou Tay ak njàmbaarteem ñun ñu féetewoo Touba ñu dénk nu organisation bi nga xam ne féetewoo Touba liggéey tey bii ñu ñëwoon fi ànd ko suñu Abdoulaye Guèye mi nga xam ne moom lañu fekk mu doon suñu jëwriñ ci yëpp suñu Xaadim Jaañ moom képp ko xam ne daan nga ñëw ñëw nga barabu suñu Saaliw ñaari yoon képp rek ku ko fa ñëw xam ko ndax ban ko tabax ko ba léegi nii saa su nekk ku fa dem gis ko muy ku jàmbaare koo xam ne ñëpp xam ne pas-pasam ak sëriñ Moustapha saar mi nga xam ne moom suba ba léegi mi ñëw jàppale ñu ko ak ñoom waa ñoom sëñ Cheikh waa Faye xam ne démb ba léegi si guddi ñu ngi fi jàpp nañu yëf yi ba mën am baas bi kon suñ saalu jang ci tamit ñu ko sant baax mo ñu jàppanil baas bi kërëm leen dem jëlé ko mu al ñuko wax deug yalla euh mom japp nañu liggéey bi ak taabal ji kërëm la ko du ko jëlee taabal ji ay téréem la ci tékkon bi ñu ñëwee da koo teggi boole ko ak baax bi jox ñuko kon momit ñu ko sant baax baax diko diko gërëm liggéey bi nak euh li programme moy dafa am ay carte de membre carte de membre bi moo nekk nii gëneew carte membre carte de membre bi mo nekk ni 1000 francs la da nga dag carte membre wane ne bok nga ci liggéey Serigne Touba social mu social mo moo ni ak reçu 5000 francs mo nek ni momit bi 10000 francs bu 1000 francs bi dafa jeex léegi way lolou li ci jull moy wéru nek 1000 francs mo tax ñu defal bu 1000 francs bi ngir ku dag 1000 francs ñu la dag dagg reçu bu 5000 bu wéké ko xam dafa dafa dag 5000 ñu man ko jox bu 5000 bi bu dé ko xam dafa dag 10000 ñu jox ko bu 10000 bu dé ko xam ni at mi la dag dang koy ma dagal bu 10000 dagal ko ñaari 1000 francs muy 12000 jox ko benn carte de membre muy 13000 at mi loolu mooy boole nit ki ci ci social mbir nak bo ci boké da ngay wone ci nga bok wane ci nga bok moy wéru nek nga dag 1000 francs loolu moy tax liggéey bi am solo bi nga xam def nañ ko ci image lele ay kër ay ay ay kër la le lee nga gis né social bi moko moko moo defar suñ bok dong yo xamné ñoo leen ko tabaxal ak ñiñ ci fajj ay nangami personne fajj na kon liggéey la boo xam liggéey bi am solo ñu ci wo mbokk julit yépp mbokk talib yépp ay millions millions ni fajj nañ kon jullit yi àddina bi yëpp ñu ngi leen ci woo ci liggéey bii nga xam ne Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké kenn ku ne xamoon na ko social dundam gépp social la kon nag képp koo xam ne taxal nga social ne ngir Serigne Saliou kon waa àddina bépp di war a jàppale ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di leen jaajëfal baax a baax jërë ngeen jëf yàlla suñu borom nangu sunu koor ak sunu jàmm yàlla jërë ngeen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa